salaamaaleykum am internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar euh, di am mbégte ci yéen nag euh, di leen ñaanal jàmm di am contentement ak sawar jàkkaarloowaat ci émission bu mag bi di Dakar Buzz social tey nag ñu ngi fii ci euh, Guy Fatou Maïga nekk ci naa ni commune Gounass di am mbégte ci yéen di leen ñaanal jàmm aussi ci gis nañ ni ngeen ni toppee dina ñaanal émission par émission gis nañ encouragement yi. di leen félicité itam di leen gën a ñaanal tawfeex gis nañ ne vidéo bu ñu tàbbal ngeen def ci li ngeen mën ak li ngeen mënul waaw ma ngi ñaan li ngeen ci def yàlla bu ngeen ko ñàkk ndax euh, ku ku lebal yàlla yàlla fay la loolu na leen leer ni euh, def ngeen ko te yàlla dina leen ko fay kon képp koo xam ne yaa ngi seetaan suñuy vidéo di ci def li nga mën ak lu mënul rek jàppal ni denc la ba lu suñu borom dencal te dana la ko fay seen émission Dakar bu social jóg solaat dàllam ñëw di xool jafe askan bi li ñuy ci biir kër yi ñu mën koo génne partage ko yéen ñu xool du ñu mën a def pour saafara ko tey ñu ngi fii ci Gounass euh, ku baax jërëjëf maa ngi lay nuyu. maa lay say ba tur bi la. sëñ Basirou Diouf laa tudd. sëñ Basirou Diouf euh, tànk bi depuis kañ bi xaw naa yàgg tuuti. depuis guerre Libéria la. dama jóge fii 88. avant 88 sax boobu maa may ma ne maa ngi dugg Libéria 88. 89 guerre bi commencé. man ak sama nijaay ñoo fa nekkoon ñu jàpp ñu. à la fin sama nijaay dana ko mujj rey ak sama yumpaañ ak sama mag bu góor man ñu jël ma Ojaas daanaka man ak ñama àndaloon ñu jàpp ñu parce que foofa duñu rey xale yu ndaw yi dañ leen bu leen jàppee dañ leen di jë def information boole leen seen biir heureusement man jotumaa yàgg ak ñoom koy sàmb saaña moo ma gis en tant que Gambien mais mu jël ma ci seen biir parce que fa nekk nekkoon ay libéré ndong lan ñu jël ma yóbbu ma ci seen biir guerre boobu am na vingt cinq ans vingt cinq ans yooyu yëpp maa nga fa. waaw boole coono ak son ak lépp. ba l'an deux mil trois l'an deux mille l'an deux mille euh, l'an deux la guerre bi doog a jeex ekkumook dugg si l'an deux mille cinq l'an deux mille six mu dis arme gars yi ñun ñëpp ñu daw tasaaroo ma jéem a fexe dugg Monrovia gise sama mu Sénégal yi foofu laa doon lijjantee nag nu mën lijjantee transport pour ñibbi si parce que daanaka am naa fa vingt sept ans vingt huit ans. yoo xam ne man damaa génnoon rek te man génn moon ak ak neen mais boo ne man dan maa xabtaloon rek génn ma ma dem à fin bi nga xamee dem naa ne yàlla tombé ñu desee guerre bi mënumaa génn mënumaa kii di mënumaa dem fenn vingt huit ans yooyu ñu fa dóor en tant que vingt trois ans guerre euh, mat génn dem Morovia temps Elie Salif Johnson ba ñu def Elie Salif Johnson ci seize bi boobu la Ablaye Wade jóge fii dem ba mu demee fekk ñu fa heureusement man maa ngi doon la jëntoon ma ñibbisee sénégalais fa nekkoon léegi ñu daal di ñuy jël daal di yóbbu ci Ablaye Wade ne dafa bëgg mu dimb ñu pour ñu ñibbisi tombe ak président Coumba Yàlla a euh, euh, génn àddina mooy danaa leen bëgg naa ne yóbbu waaye mënuma leen a yóbbu waaye danaa leen may transport ku ci ak Sénégal boo ñëwee danaa la danaa la fayal sa sa sa sa hospital bill sa sa sa sa transport sa kii daal sa dépense hôpital waaw léegi nag euh, à la fin bi nga xam ne yaa euh, wax na loolu ñun ñu ci nekk ñun cinq personnes Ablaye Wade may ñu ku ne un million man may na ma un million Sénégalais yi newoon fa bi ñu ko séddalee defe naa man am naa neuf cent mille fekk ma amoon aussi un million cinq cent li ma dugal fii dugg naa fekk un million sept cent ba ma ñëwee nag fii xam nga ku bàyyi dëkk trente ans xamatoo fa dara ma ñëw tombeek sama tànk yi ma feebaroon dem opital ñu ne dañ koy dagg ma daw ñibbisi ma ñibbisee mi ngi tombeek ab Ablaye Wade ak Macky Sall ma daal di jóge fii dugg Casamance foo yaakaar ci Casamance dem naa fa di wëndeelu di wëndeelu di wëndeelu di wëndeelu ba xaalis boobu yëpp dafa jeex sama loxo kii sama taaw la à fin bi ma ñëwee fekk fi aussi yàlla dogal na mu jël ma euh, nekkoon naa fii ci moom boobu dem na ba yàgg moo amul doole te bëgguma fee nekk di ko sonal ma dem Touba. ma dem Touba di liggéey ak di faju liggéey ak di faju boole léeg ma liggéey ba am benn som bi su ma ko ma toogee commencé faju bala maa sori xaalis bi jeex. Mm-hmm. su ma nee naa dem di leneen encore tànk bi delluwaat à zéro. Mm-hmm. loolu laa jàppante woon ba fan yi nag tànk bi sono ma lool xaw ma nu may def. Mm-hmm. à la fin boobu daal damay indi fii nag ne ma nan dem Dakar ma seet samay am di jàmm ak ñi nga xam ne vraiment ñoom man na maa jàppale. bu ko defee ma waxtaan a ñoom ñu dimbale ma nga seet noo fajoo. mais tànk bi ni mu tukkee pourtant tànn wala lan la wala dafa jékki-jékki infecté. tànk bi genre pottentaan la ma koy ko koy wokk mu mu mu def góom ci benn bi à fin mu jalaat nag nii nee naan def def la te ba ma demee Casamance nee ne ma def def la te man xam naa ne def def la parce que ki nga xam ne dafa nekkoon nag man ma doon ko jàngal yaa benn booy bambara bu doon dama ko xam carrément kooku moom moom ma ko def ne ma ku demul doo andi ba ma demee Casamance wax nan ma ko boo nee na ma li si nekkoon lépp dindi nañ ko léegi dangay dem def medical data jël ay ay antibiotiques ba ko defee mu mën a rey góom bi bon nga dem dugg ci ba nga xam ne sori nga ba góom bi des lu au moins tuuti nga sa xaalis jeex nga delluwaat bëgg a reyante xam nga bu doon ci loxo mbala ci wet mbala yooyu nga ne waaw boo tànk yi ci la poids bi yëpp di wàcc waaw loolu mooy sama problème. Libéria lu fa yóbbuwoon. Libéria man man man fii ma fi nekkee à à âge vingt cinq ans damaa teel a yor sama dibiteri waaw xëy xëy dama xëy benn bis rek able boo jëlee Massa Zeng nga dem bay ba a àgg Dominique bala ngaa jàdd baal bu la féetale nii ci banque bi dibiteri boobu nekk ci pax mi ci kër gi kër ñoom aatumaan foofu sama dibiteri la néeg la man maa ko ubbi dibiteri ak 81 82 doon xale bu ndaw di rey ñetti xar balaa timis mu jeex à la dama xëy rek def def la waaw parce que histoire la woon bu ndaw rek xam nga rek la doonoon la tàmbali woon ba muy xale mënoo dem ba nekk mag di ko nettali te ñu ngi ko seqaloon dem ba am ak njaboot am na yoo xam ne mënoo koo wax dégg ma la wax noonu daal la demee woon à fin daal man ma di génn rek dem fu ma dem ñu xamal ma ne ma génn la bun ma génn waree waaye xañ na mission la ba ma suñu borom tegoon ma war koo def sama nijaay jooju bi mu nekkee xale lañ ko génne woon te moom itam ba ma demee Libéria fa laata seeg ba ni ko yàlla moome mais daal li la li la li la wax jàpp na ne def-def bi jeex na problème médical moo ci des. moom daal wax nan ma loolu vraiment man maa ngi kii waaye saa yoo xamee ne dem naa ci ba nga xam ne euh, euh, am naa ci yaakaar sama doole jeex su ma delluwaatee di lijjanti xam nga dem ak dikk bi ak taxawaay bi mu yëngatuwaat. léegi ma décidé daal seet koo xam ne mën na maa dimbali nga xam ne dinaa mën a reposer faju ba wër. am internet Dakar Buzz li ma leen ko waxee rek. seen émission Dakar Buzz social la kilifa la di jàmbaar nag di góor gu murit boo ko gisee sax boo gisul tànk bi gis jëmm ji rek da naan dara météo ko ngir gëmam ak passeefam ak nangu dogalub sunu borom boo gisee sax ak tawxiit gi ne ci moom ak ngëm gi dalay gën a motiver mais mu ngi dund ak métit mu ngi dund ak métit bu doy waar boo xam ne boo ko tiimul doo ko xam damay ñaan rek ci mbaaxu yàlla ak yonent bi yéen may seetaan te mën cee jàpp. mosoo leen maa neenal maa ngi leen di xaar ci góor gi tànkam yi ku ko mën a jël saat charge yóbbu ko hôpital mu suivre traitement bi yàlla moo lay fay ku ko mën a tàbbal dara tam loo xam ne dina ci mën a jàpp pour mën a suivre ay traitement tam bañuñu loolu mais daal yaakaar naa leen ci ngir jëmm yàlla ak yonent bi te wax dëgg yàlla am naa ci yéen yaakaar boo ko jegewul mënoo xam li ne ci moom métit la mais muy ku gëm yàlla ku nangul dogal saa ku dëgër nag barke sëñ Tuubaa mën nañ ci xaaree ñëpp ngeen jàpp ci ci du ngeen ci mën a jàppee nag tey du ma lim kuy dégg sama kàddu rek maa nga may gis rek maa ngi la ciy xaar te xam ne ku lebal yàlla yàlla fay la mag la dégg ngeen li wax métit bi doy na waar foo ko takk rek weesu na foofu foo ko takk weesu na foofu benn putantaan ci tànk rek ci xol lay jàpp waxuma ak muy dund ak moom lu mel ni ci ñaari tànkam di kilifa mais xàddiwul yox saalitul mi ngi ànd gëm. ak gëm ni suñu borom moo ko def te danañ ko dindi mais maa ngi leen ciy xaar ku ko mën a jàppale ci wàllu hôpital parce que lii nekk na loo xam ne yaakaar naa ne bu buñ ko sot sotoowee rek yàlla mën na ci def tawféex mu mën a faju wër dox ay soxlaam te lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan te bëgg laa jàppale. addina moom loo ci gis rek mooy lépp lu waay def sa bopp. waaw ku sañoon soo amee problème làmb sa poos faj ko. Mm-hmm. boo doon ku ne yaay may sa bopp. kenn du néew la ñëpp yow miy maye. kenn du la gën a doon le waaye comme yàlla dogal na juróomi baanaam yi mu bind suñu borom ko bind sax te tolloowuñu. waaw dafa bind ñuy tabax bind ñu du tabax bëgg ñi ñi la jënd seen problème am na ñoo xam ne ba bala buñ jàqee waaw balaa seen problème faju ñëpp yëg ko xañ na tànk yi yàlla suñu moo ne woon force ñu toroxal ko mu doog a faju loolu moo tax suñu defee ko nii may ñaan ñëpp waaw képp koo xam ne mën nga maa jàppale te yàlla tax maa ngi lay tàllal loxo toro toroxal sax xam nga feebar li ma naan moog moog dañ koy weer feebar moog moog jàngoro dañ koy weer te lii eh, am na bon volonté yoo xam ne ñu ngi may seetaan saabu mu dugg dugalee vidéo dinañ ci jàpp ñooñu yaakaar naa leen ci te wër na Serigne Touba ma yaakaar ne dinañ ci jàpp parce que xam naa ne am nañ xolu yërmande te ku leen jàkk xam ni lii ngay dund ci métit ñoom jegewuñ la mais man mi la jege xam naa ne yaa ngi dund lu doy waar noo ko dundee lii ak guddi gi. ok guddi gi doo doo nelaw ba set ndax yow bu fekkee tey jii même waxuma sax temps yi nga xam ne dama koy takk fas ko euh, dem lijjanti yi weccet ba ngoon jot ma ñëw du ma nelaw waxuma ak heure yi parce que même bu fi moom sax boo ko defee da koy yëg ci si mm-hmm. waaw yow doo sëqët doo wëlbatiku te léeg ma tëdd sax ba fàtte sama bopp mu taq ci darab bi mm-hmm. su ma ko génnee pour ma génne ko ci may ma ne xooloo sama loxo yi leen na ma ne ba ma àggee li may njëkk laaj mooy deret mm-hmm. parce que li ma naaj ci fan yi dafa bari trop. dama naaj fan yi bari na trop. waaw léegi bi nga demee hôpital ah, defalul la ay analyse ak yooyu. non dama ko ma hôpital yi ma daan dem yëpp. hôpital bu ma ci dem du hôpital yu mag yi. ay hôpital yii laay dem ñu booleel raxas passement. daal di bandaas suba ma dem ñu continuer ko su demee ba xam ne kii mënalu ma dara damay tàddeel ma dem su ma demee toog ñaari fan ñett déggaat beneen maa man ma dem foofu. su déggee ku ne ci àll bi ma dugg ci àll bi. léeg ma dem ci àll ba am fa weer ñaari weer dellu si waat su ma ñëwee aussi baagante xamay ak baagante beeg dama ngi dëkk bi sax li ñu jël oto fii ci Zangbaam ñëw fii rek fi mu nii sama séddi yaa ngi yëngatu. moom moom mais jàpp nga fi bu tey bu opital bu ma ko mën a faj. lii na ma ne lii bu ma duggee opital leer na ma sunu borom sëñ Tuubaa mën na cee def tawféex. waaw ñu ñaan euh, sunu borom def ci tawféex euh, li ma waxoon rek laa leen di waxaat numéro bi dina defile noonu ci baaru écran bi. numéro yi ni ngeen ko war a jàppalee du pour man pour moom la mais daal yaakaar naa leen ci seen émission Dakar Buzz Social euh, lii la day xool li jafe-jafe sénégalais yi di dund ci biir kër yi ak ñu dul sénégalais sax mu jog def ci kéemtulaay kàttanam ngir mu saafarawu euh, yaakaar na ma ci man yaakaar naa leen ci maa ngi ñaan nag ngeen fekk ma ci sunu góor gi yàlla defal ko tawféex defal ko sutura dolli ko wér ba mu jóg doxi soxlaam yaakaar naa leen ci te xam naa ne ku defal yàlla yàlla fay la. nan nga gisee émission bi di Dakar Buzz nga xam ne lii téem yëpp mooy xool li jaamu yàlla dund ci biir kër yi te néew doole mu génne ko ngir mu saafaraw. yonent bi sallallahu alayhi loolu la wax. boo fekkee sa mbokkam taalibe moo xam ne wala sa mbokkam jullit. moo xam ne dafa jàq. ba mu am lu lu ko lu lu ko lu ko jaaxal. nga taxaw ci ba saafaraw. kon lii ngeen di def nii leen koo def te yàlla tax. ndax man mii sax xawma leen maa ngi leen di doog a gis. sama doom ji moo ne ma rek kaay bi may génn sama yaakaar ne damay lale ci bitti pour ma toog mu ma kaay wax ñi ma génn li ngeen di def yal na leen ko suñu borom fay leen ko ngir ñun da ngeen ko def ngir seen bopp waaw doomu aadama ku ko jàppale suñu borom jàppale la ñuy ñaana suñu borom rajo bi jëm ca kaw ca kanam suñu borom yaatal leen ubbi leen buntu baabul xeer yi ubbi leen ay tawféex ubbi leen du ne gaañ ba ngay mën koo defal keneen ak keneen ak keneen ak keneen ko dut man loolu donc laa leen Euh, jërëjëf yàlla yàlla nangu ñaan yi seen émission Dakar Buzz Social la fii ci Guy Fatou Maïga numéro yi nag yi nga xam ne moom lañ ko war a jàppale mi ngi noonu défilé ci baaru écran bi ku ci waay mën a jàpp rek ak ko ko mën a jël en charge yi itam yóbbu ko hôpital loolu tam mi ngi koy xaar mais daal yaakaar naa leen ci di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen tawféex seen émission Dakar Buzz sociale fii ci Guy Fatou Maïga yàlla na ñëpp am jàmm di ñaan sunu góor gi yàlla fëgg boppam ci barke Yonent bi barke Borom Tuubaa jërëjëf Dakar Social